pratiquement waxaguñ leen ca dara moo tax yëgguñu ca woon dara jamono joojee waaye tey jii nag waa Pima dañu ko publier ci seenub site xamal askan wi yëpp ne Sénégal maillot yi lay sol buy dem ca coupe du monde ba benn couleur bii ngeen gis nag mooy maillot domicile maanaam Sénégal buy dalal moom lay sol ñaareelu maillot bi génnewuñu ko bii la ñu génne la ñu xam le ne moom lañ koy jaayee mooy quatre-vingt-dix euros quatre nag boo ko calculer ci xaalisu CFA mi ngi toll ci cinquante-huit mille yu toftal astu tuut kon nag mayo baa ngi noonee nu ngeen ko gisee wax leen ko ci commentaire yi rafet na wala rafetul ak lu ci mën di am daal yàlla na nekk mayo bu jig lool équipe nationale bu Sénégal ñu dem jël coupe di monde ba indi ko fii ci Sénégal ñu jugee ci équipe nationale bu Sénégal jël doomu Sénégal bii di Kalidou Koulibaly président am di De Laurentiis li mu xam xamle moo di moom mii kat du téye Kalidou Koulibaly ngir xaalis ndax kat moom amul xaalis bu mu ko jox waaye nag su fekkee dëkk ca Napoli neex na ko mën na liggéey stade am Kalidou Koulibaly moo ko ko gënal loolee nag ka mu ko xamal mooy Fabrizio Romano ñu jugee ci Kalidou Koulibaly jël doomu Égypte bii di Mohamed Salah moom nag ca Premier League ba fans ya moom la ñu tànn mu doon ki gën a xarañ ci saison bii ñu génn di saison 2021 2022 ci fàttali moom mooy meilleur buteur waaye nag dafa ex aequo maanaam dafa tolloo ak Edminson fans yi nga xamante ni ñooy topp Premier League boobee moom la ñu tànn tabbu ko mu doon ka ca gën a ko raayam Egypte ñu jógee ci Mohamed Salah dem ca waa Real de Madrid ñoom nag seen gone gii di Isco siiwal na ne day jógee foofee ci Real contrat jeex na te du ko yokk ca club boobee moom yàgg na lool ca Real de Madrid. ndax def na fa 9 ans 2013 ba léegi ma nga ca Real de Madrid kon sëy boobee kat jeex na ci diggante isko ak Real de Madrid moom nag jël na fa juróomi Ligue des champions kon doomu Espagne bi day jógee foofee ci Real de Madrid. ñu jógee ci Isco waaye Real de Madrid googee duñu ko génn bu sukkandikoo ci RMC ak Real de Madrid ak AS Monaco léegi ñu juboo li ko waral moo di Real de Madrid yokku na ca la mu fayoon yegg na ba quatre-vingts millions d'euros te loolee sax am na ay bonis olof di ko wax buuñaa ndax président wu Real ba moo jël yëf yi ci ay loxoom ngir kat jënd doomu France bi yóbbu ko foofee mooy doxal te RMC li mu xamle moo di jubukat mën naa am ci fan yii di ñëw naam waa Paris ñoo nga woon ca mbir ma sax ngir xëpp ca suuf waaye kat jamono ji waa Real de Madrid ñoo leen jiitu ca yëf yooyee kon moytuwul file ak ay fan rek dinañu ko siiwal mu dem ca Real de Madrid jàppale ñenn ca milieu de terrain ba ñoom Casemiro ak Camavinga ñu jugee ci waa Real de Madrid dem ca waa Bayern de Munich ñoom nag tey jii siiwal nañu ne doomu France bi day jugee ca club boobe di Tolisso moom contrat am dafay jeex tàkk te waa Bayern noppi wuñu ngir xaatimal ko beneen contrat kon dafay jugee Bayern googee duñu ko génn ndax kii di ñabri moom it waa Bayern tegal nañ ko contrat bu yees tàq la ko xamal moo di laa fay par saison bu jeex loolee nag waa Kër Ñabri dañu ko bañ ñoom la ñu bëgg moo di dix-neuf millions d'euros la ñu bëgg waa Bayern fay leen ko ñu door a xaatim beneen contrat waaye nag kii di Ñabri la mu bëgg moo di bu fekkee loolu amul mu soppi xar kanam moom mii nag jaar na ca Arsenal waaye dellu waat fa waa Real de Madrid ña ngi koy bàyyi xel waaye jamono ji Real talul Ñabri ka mu tal moo di Tchouaméni ma nga xam ne ma nga ca AS Monaco Real li mu bëgg ñu door koo song loolee Fabrizio Romano moo ko xamle ñu jugee ci ñabri dem ca waa Tottenham ñoom nag doomu Croatie bii di Ivan si jamono ji ma nga ca Londres la muy def moo di passé visite médicale su lépp yembee nag dina xaatim contrat ak waa Tottenham ñaari at nag lay signé foofee la noppi ngir fay ko mi ngi toll ci six millions d'euros kon moom mii di Ivan Perisic si ji may wax ak yéen mi ngi def visite médicale ñu jugee ci waa Tottenham dem ca waa Lille ñoom nag doomu Tunisie bi nekk ca Saint-Étienne ñoom démb dañoo wàcc dem ligue Ligue waaye kat jamono ji waa Lille door nañu waxtaan ba ngir indi Wabi Xasri foofe mu jàppale club boobee di liil loolee nag ki ko xam le mooy Fabrizio Romano ndax kat jamono ji gone gi noppiwul ngir football ci lig 2 boobee te jamono ji waa Lille bëgg nañu ko ngir mu des foofee jàppale leen gaa ñi yëf yi foofu la buuree ñoo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp ba ci kanam ak beneen vidéo incha allah